jógul jël ci ay matuwaay dina gën a yokku ndax nag nañu koy amee ba mën a tabax kër moo metti lool ci jamono jii ñu wax ci leneen muy askan wa dëkkee eh, Guédé Chantier nekkee ca diwaanu Podor ak la ko war foofa ñu ba Sénégal moomee boppam seen dëkk booba juróom benn fukki at ak benn bu fa seeni maam ñëwaatoon dara du leen fa réer ku de mën ngaa jubal sa kër ndax dara yokku fa ci ay jumtukaay tumuranke nañu seetaan nañ leen ci lépp wàllu ndox faju ak jàngum école lépp dañu ko tumuranke abukan la ñu fay fekkee li moo gën a fees ci bopp xibaar ci kanam tuuti faram fàccee ko ci Walf TV leexu jamono la voix des sans voix dal leen ak jàmm xibaar yi ci yaatal jëwri ji ju dénk wàllu napp gi moom Aliou Ndoye ñii di mool yi xajootuñu ko nii ba ñu ko joxee wàllu week léegi sooxe bi bari na lool bato yi jóge bitim réew bari ñu ci géej gi fees fa dell ba ñoom ñii di mooli Sénégal mënatuñoo napp dara teg ci licence de pêche mooy kayit yi leen di xaatimal ngir ñu mën a napp ci réew yi digaloo ak Sénégal waxtaanuñ ci ak yooyu la réew ba indi ci ay saafara lépp daal coono la ci ñoom Thierno Daaf la ñuy fekk mbuur ak la ko war mool yi nekk ci diiwaanu mbuur ñooy sàkku ngir ñu tekki ndombal tànk jëwriñ gi leen bokk jaboote ñun amuñu ay sécurité te ñun dañuy dagg ay licence di dem si ay réewu jàmbur lan moo tax état gëmm bëtam ci loolu euh, le ministre de la pêche Alioune Ndoye sera en démission le plus vite possible sinon ñun soxlaatuñu ko ci ana lan moo waral ñuy sàkku li nu mel faramfàcce yi ak ki yore kàddu mool yi dara amatu fi de Saint-Louis à Cap Skirring tey bépp xeetu jën boo xam ne ñu ngi ko doon teeral si tefes ñu koy jëriñoo rek gisatuñ ko bato yi nga xam ne ñu ngi biir Sénégal di napp ñi nga xam ne am nañ licence ak yi amul licence yëpp ñu génn leen fi mais defuñu ko. du oo njabootam si jàmm di leen oo si salaam actuellement Sénégal boo xoolee amul benn tefes boo xam ne am na jën a cause de lui parce que moom moo ko andi ñoom ñoo signé ay contrat de pêche bato yi nekk si géej gi kar jën bi jën bi mënta teer ba pare ñuy war gaal yi bépp gaal goo fi dégg ne dafa réer gisuñu ko rek jàppal ne bato yi ñoo ko war bépp mool bu fi dee jàppal ne bato yi ñoo ko rey. mool yi ñaawlu nañu tam li ñu teg tànk jamono ji licence de pêche yi ba tax mënuñoo napp nu mu waree. bato bu dem géej nga dem wëri gaal tey ñu ne gaal gi dem na géej gisuñu ko nga dem seeti gaal gis gaal gi toj na la lóor na gaal googu bato moo ko war mais dawul ba toj fii amul benn gaal giy daw ba toj. permis de yi nga xam ne dañ ko zile tamit mu métti ñu trop trop waa service des pêches di di jàpp gaal yi doon na lu ñu métti te bu fi jógutee dinañ jàkkaarloo ak ñoom. licence yi nga xam ne ñoom ñu ngi koy signé ànduñ ci tey ànduñ ci suba parce que mënoo di signé ay licence accord de pêche pour ñu napp sa géej te yow sa géej amul jën say doom ñu ngi torox di walaakaan actuellement fi mu toll nii li benn filet tourné di yóbbu si euh, emploi boo dajalee dix bateaux moom moo koy yóbbu kon bateaux yi ñuy signé ay licence amul ñu benn njëriñ. buñ ko mënee arrêté nañ ko arrêté. géej gi chaque fois ngeen dégg na am na ay pêcheurs yoo xam ne réer nañ si géej gi marin bi lan la fiy jëriñ lan la fiy jëriñ doo dégg ñu seeti leen am na luñ fi waajaloon ñu gàllankoor ko mais cette fois ci état duñu téye leen dinañ téye. ci gis-gisu moon yi bëree bi ñu sumb ngir ñu tekki ndombal tànk jëwriñ gi leen bokk jaboote du mës a jeex fii ak Aliou Ndoye abalu leen. Mbour Thierno Daaf Walfadjri ca Mbuur mool yi fii ci Ndakaaru ak seen kuréel gi ñuy wax INAPAS ñoom it daje nañu ak taskatu xibaar yi di tawat jafe-jafe ñuy jànkonteel bokk na ci bato yooyu jóge bitim réew ñu bëgg nag ñu wax leen lim mu toll ndax jàpp nañu jéggi na dayo ndax bari nañ ci géej gi ñu ngi leen di war di nappaaje teg ci bu ñu nappee dootu ñu fa fekk dara waaye tolof-tolof yi bari na ba ñu yóbbante ko kii du Omar Diagne moo ci wax ak yi uh, ndekku na ci Sénégal président Macky Sall la ñuy waxal directement président Macky Sall dañu bëgg nga xam ni li la faloon gesul si ginnaaw tuuti kàddu yi nga waxoon ci ndar dégg nga ko xam nga ko yaa ne woon état bi jaay na géej gi kilo ya yabay ñetti dërëm gisatuñu coof gisatuñu ko yaa ko waxoon yow président Macky Sall ñun li ñuy wax lu ñu leer la lu ñu xam la lu ñu dund ànd ak yow nag ba yàlla jox la réew mi tey jii ñu gis ngay saax-saaxee suñu alal suñu moomeel muy géej gi tey bu ñu demee ba àdduna tollu benn mool mënul xëy suba dem jëndal boppam machine loolu lu metti la feebar bi nag bari na ci réew mi muy feebaru géej gi géej gi nag dafa nekk loo xamante ni président nga dimbali ñu ci qualité ministre yi nga ñuy booleel ministre yi nga ñuy booleel amuñu niveau amuñu xam-xam xamuñu fan la ñu jëmee Sénégal ñun bëgguñu ku réussir vie ci Sénégal Sénégal ñun léegi dañu sonn li nit ñi di def mën nañ ko ñun ministre bu pare walla président bu pare pour réussir carrière am ci Sénégal ñun loolu la ñuy xaar monsieur le président ñu ngi lay tàllalaat loxo bëgg nañ la jàppale mais ci kaw boo ñu jàppalee bato yi nekk ci géej gi nga auditer ñu pavillon Sénégal ñaata bato ñoo fi nekk ci géej gi ñaata bato ñooy mbaal ci géeju Sénégal bëgg nañu ko xam. te bëgg nañ boo ko xamee ba pare nga jàkkaarloog moom wax si. ci wàllu tabax kër ciment yokku feer ak béton yi cay ànd mu jaaxal lool ñu yëngu eh, ci wàllu woowee di tabax kër ak eh, jaay waaye tamit teg nañ ci ni bu ñu moywul yokkute googu mën naa dem eh, ba luwaaye bi cher lool ndax daan nañu ko jooytu daf ciy gën a raw rek bu ci nguur gi jëlul ay matuwaay maamu jaabi gasam moo waxtaan ak ñoom. ab yokkute moo am ci yenn jumtukaay ci lu ñeel wàllub tabax lu ci mel ni ciment njëg li yokku na tonne bi jóge ci 62 000 francs CFA dem ba 70 000 francs CFA ci suñu koppar fer bi nag jóge ci 38 000 francs CFA dem 50 000 naka noonu tamit njëgu béton bi daal di am ab yokkute lu tollook junni ci prix unitaire ña nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci lu ñeel wàllub tabax di ko naqaarlu xanaa di ko mettitlu di ko naqarlu rek xam ni nit ñëpp dañuy ñaan yàlla dund ba am luñ tabaxee am kër xam nga bu ñu débrouiller pour tabax. gars yi bu ñu ba amuñu moyen buñ ñu jëndee ciment chantier day taxaw su boobaa maçon yi bu ñu tabaxut menuisier yi duñ coffrer. beton bi lépp a yokk fi mu toll nii. dafa yokk manqué. dañuy wax nguur gi mu gën cee bàyyi xel quoi gën cee wax. et puis tamit di surveiller bu baax ñi nga xam ne nii dañuy jënd dañuy jël quantité yi di ko stocké bu nee bi ñu génne ko tamit. dafa jaadul quoi. jëndkat yi ñoom it bi la yokkute juróon na leen ay gàllankoor. ciment bi yokk nañ ko cher na trop parce que jóge na cent cinq soixante huit léegi soixante dix te pour ngam ko sax yombul. luy jëm ci construction lépp lañ ko yokk fer bi ciment importer local lépp pour gars yi tabax dafa métti trop moo tax su gars yi ñëwee na location day wàññeeku location dafa cher mais mais il mu cher. avant da nga yor benn 15 millions nga tabax foo mun a dëkk bu fekkee mos na pare mu nga tabax mais léegi ak 15 millions boo ko fayee maçon bi la tabaxam <laughs> location bi il faut mu il faut mu cher foog état jàpp ci ñu wàññi ciment bi wàññi ko bu baax a baax a baax a baax wàññi fer bi wàññi béton bi nit ñi même suñu mënul am kër sax ñu am fa ñu mën a dëkk du louer di fay prix bu raisonnable projet bu ñeel njaboot gu nekk am dëkkuwaay mu nekk la nga xamante ne lu muy und rek moo di ne képp kuy sénégalais nga am ab dëkkuwaay ak fépp fu mu ta nekk ci miim réew waaye li ni mel amaana du mës a sotti su fekkee ne njëgu jumtukaayu ñeel walu tabax dinañ ci nemmeeku ay yokkute yu dul jeex Mamou Diaby Gassama Ibou Guèye bàyyeeguñu leen ndax ci wàllu yokkute googu ci ciment bi fer bi ba ci beton bi kuréel wax na ci muy nag président forum des jeunes consommateurs di woy jënd jëfandikoo yi ak taxawal boobule kuréel di saytu saa su ne njëgi ne nañ fii mu toll dina jéggi dayoo lu ci mel ni location yi mën naa yokk jër ñi ñu dénk wàllu njënd ak njaay di commerce la ñu bëgg ñu gën koo dooleel ba muy saytu liy bugg ci réew mi booba du yëgsi ci askan wi ak diis lool ñu teewlu ko moom Seydina Maam Alassane Sow lay wuyoo ak Mamou Gassama tey ak Ibou Guèye jaaykat yi dañ amul bon foi si li ñuy si li ñuy jaay yokk da leen yomb trop dañuy jékki-jékki am seen benn problème bu ndaw rek ñu ñu rek ñu profité rek répercuté ko si si bi te ñun euh, gaañ-gaañ bi mu si bi mu si am kon consommateur bi lay tegu mais loolu moom boo ko gisee nag mooy que ñu suñ système contrôle économique ba léegi doole bi mu war a am ak ni mu war a taxawee dafa des lu waral loolu mooy ministère du commerce ak cër bu état Sénégal cërale ba léegi dafa des. dañuy chiffres yi nga xam ne jot nañ ko am du suuf matuñ sa trois cent personnes sur l'étendue du territoire ki war a administrer des prix million de sénégalais ak ni commerce bi informé les Sénégal état du Sénégal ba léegi góorgóorloo gul pour indi fa suffisamment. d'éléments yoo xam ne dinañ mën a def seen liggéey correctement ministère bi il faut que mu gën a wane pouvoir am si kaw commerçant yi ndaxte am na ay réglementation yu am yoo xamante bu fekkee da nga wàcc yoon war na respecter prix respecter wu prix am na ay daan yu fi nekk mais daan yu ba léegi dafa xaw a des ba tax ñu ne depuis plus de trente ans consommateurs yi ñu ngi doon xeex pour ñu am benn loi boo xamante ne non seulement dafay protéger consommateur bu baax mais dafay gën a dooleel consommateur bi. loi boobu fin décembre 2020 lañ ko adapté à l' assemblée nationale mais promulgation bi avec mu war a ànd ak li ñuy wax say délégué d' application ba léegi moo des foofu dafay mel ni léegi fulal ba état du Sénégal war a fulale pour gën a toppatoo consommateur yi dafa des. ñu génn ndakaaru wutali Guédé village diwaanu Podor foofa askan wa fa nekk di dañoo tumuraanke bi Sénégal moomee boppam ak léegi juróom benn fukki at ak benn dara yokku ca seen dëkk ba bu fa seeni maam ñëwaatoon kenn du laajte ku ne mën ngaa jawal dugg sa kër coppite amu fa kii di Babacar Gueye moo ci dénk ay kàddu kabukan ca Guédé village daal lenn moo ko waral parce que ñun waa Guédé Guédé Santhie li ñu bëgg daal amuñu parce que am nañu mairie depuis 2009 am nañ commune depuis 2009 te depuis boobu ba léegi gisuñu fi dara lu avancé gisuñu dara li nga xamante ni commune bi liggéey naw léegi nag ñun ñu def benn marche bi nga xamante ni pour Guédé développé wu pour ñun ñu am lu ñu bëgg parce que boo xoolee depuis boobu ba léegi depuis croisement Guédé ba ba si biir Guédé amuñu yoon bu baax amuñu ay goudron te mairie bi depuis mu commencé ba léegi amuñu kii amuñu hôtel de ville te dañu bëgg jël maison des jeunes yi nga xamante ni ñun loolu lañu amoon ñu jël ko def ko mairie te loolu baaxul si jeunesse bi te baaxul si dëkk bi tamit boo xoolee tamit suñ suuf yi nga xamante ni ñun ak waa Leera ñoo ko bokk te ñu commencé woon ko ba léegi eggale wuñu te loolu tamit bëgg nañ ñu régler ko sinon jeunesse bi dina jóg pour régler ko boo xoolee tamit am nañ suñu forage plus de vingt ans tey forage baa ngi fii forage bi ñi si nekkoon ba léegi ñoo ci nekk ñu woote assemblée générale ñu xool li nga xamante ne doxul tey robinet day ubbi suba mu tëj te forage bi ndox mi ndox bi nga xamante ni nit ñi loolu la ñuy naan seetul dara. salte dafa salte te forage bi duñ ko raxas kenn du ko garder forage bi si kaw amul benn kubéer man loolu laa si amoon ci li mooy wax ñu ngi ñaan nguur gi. ñu ngi ñaan tamit ñi nga xamante ni gis nañ lu ñuy def nii ñu jéem ñu jàppale ndax jeunesse bi dafa jóg pour uniquement avancement Guédé parce que ñun amuñu lu dul Guédé Guédé la ñu am suñ commune la ñu am bu ñu jógee Guédé village ñibbi si Ndakaaru dinañu taxaw Kër Massar foofa ca seen Assainies coowal suuf am na fa ndax askan wi nee nañu ab promoteur ñëw na bëgg a toj seeni kër nangu seen bayaal te seen suuf soose ñoo ko jënd ci seen HLM ba mu mat sëkk ñu dëkk boobaak tey coow topp la leen mbirum 94 milliards di juróom-ñeent fukk ak